Sénégalais yëpp xam ni demandé wul grâce yóbbantewul ku demandé grâce laajtewul ñu bàyyi ko daf fi toog ak dignité ak personnalité ak honneur donc ngëm-ngëm boobu mu am moo tax lii am te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndegam moom lañ doon sonal duñu duñu bàyyi ñun ñëpp waaye kii gor pire gor pire ñii mooy Khalifa Ababacar Sall waaye que ñetti mi ngi ko dund avec dignité dund avec courage kenn dégg ko ko mu yóbbu kenn dégg ko loolu nag leçon boo xam ne daf ñu ko lancé ñun ndaw ñi leçon la boo xam ne daf ko lancé classe politique di rendre hommage à tous les sympathisants yi nga xam ne mën nañu combat bi avec dignité di leen wax le combat nous fait recommencer Khalifa retrouve la liberté aujourd'hui et il pour qu'il soit rétabli dans ses droits. je vais aborder le, problème d'un autre angle. baissez les bras démocratie sénégalaise. Une fois de plus, li ñu doon ñaan te am ah, on est content on est fier maintenant quelle que soit malgré nos divergences politiques les Sénégalais Ira ñu koy ñaanal yàlla may ko wér te mu yàgg fi te Ira tam li bi c'était mystique parce que ñu bari xamuñu lu Ira doon wax parce que nee na mu am jàmm il faut Khalifa génn na nag suba di ngeen xam ne Sénégal dina am jàmm sant yonent bi sant Muntaxa sant Ira Ndaw parce que Ira Ndaw mooy góor xam ne du sëkk jëf Ira musul xam Khalifa Ira nous les femmes khalifistes pure